والقلم وما يسطرون rahmatullahi wa réew mi mbokki jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu rafet te di leen sant lu bari lool di jiital ci nuyoo bi nag kilifa diine yi ak kilifa aada yi li waral cant gi nag mooy liinu bokk muy yaatal mbindum alxuraan bi nga xam ni baaxoon nañ ko def ci at yi te ren ñu def ko bi ñuy wootee it nag ñuy sant nag beral cant goo xam ne ñu ngi koy beral candidat yi ndaxte ren bi ñu wootee 574 wuyu si nañu at mu ni daana bari waaye ren la rawati di def jongante bu jafe bii ndimbalul sunu borom rekk waaye roba ju xam ni dañu la koy berte rekk na la bind ko maas ko ku ñu ko joxoon te melooni ñoom danga xam ni du mbir mu yomb waaye yàlla leen ko baaxe kon ñu ngi leen di sant ci loolu ñoom itam di sant nag comité scientifique bi nga xam ni ñoo ko doon taxawe ci njiital sëriñ Xaadim Njaay ak sëriñ Moustapha Diop Ndar ak ñi ñu ko àndal waa C3S it delluwuñu ginnaaw ñoom itam jëf nañ ci jëf ju nga xam ni seen jom jëpp def nañ ko ci njiitul sëriñ daamture ak sëriñ Mamoun Fall rawaate na nag sëriñ Fallou Seck mi nga xam ni moo doon jiite wa bis yépp nag ak waxtu yépp loolu taxawaay bu rëy rëy rëy la ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm di sant sunu kilifa nag muy sëriñ Xuja Seck cant googu nag maa ngi ko def ci ay baayam ak i ak magam ak i rakam ndax sëriñ Khoudia moom mooy sunu kilifa noonu fiim mu ne tey moo tax sant nañ ko ci cant gu wér a wér a wér jëf yàlla mi mën a fay yàlla na leen fay gën ji fay ci barkeb alquran ren nag bis bi dañ koo tudde kilifa gu mag sëriñ daam Abdourahman Lo mi nga xam ni ku ne xam nga ko ci alxuraan dara jaare ko sëriñ Mor Joob Ndar kenn réeruwul li mu def ci alxuraan bis bi nag mi ngi dajeeg ren dimanche di 10 avril 2022 yàlla nanu ci yàlla yóbbu te lépp rafet te sa borom nangu jëf yi jërë ngeen jëf ba déwén ak jàmm asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh بنعمة ربك بمجنون